ñaar fukki candidat ak benn la segg yoon moo ne bu ñu seggee foofu may nañ candidat bu nekk nga def recours boo gisee ci liste boobu ñu def loo xam ne jàpp nga ne méngoowul ak yoon Thierno Alassane Sall sukkandiku ci loolu daal di dem déposer recours conseil constitutionnel ne ah attention suñu yoon dafa ne candidat président pour nga nekk ko benn nationalité dong ngay am doo ci boole beneen te diggante bi ay kayit génn wane ne kenn ci candidat yi tudd Karim Wade ba muy déposer dossier am kayit génn na wane ne dafa am tamit nationalité française moom bi Thierno Alassane Sall yëkkatee mbir mi mu daw wuti décret bu wane ne amatul nationalité waaye boobu décret mu ngi daté de 16 janvier te ba muy déposé mu ngi déposé dossier le mois de décembre dossier yi yoon moo ko tëralee noonu booy déposé da ngay def déclaration sur l'honneur mooy wax ñu la nga indi ay preuve yow yaay bind këyit ne si suma honneur bopp maa déclaré lii ak lii am na nationalité sénégalaise exclusive la xaw ma benn nationalité conseil bi sukkandiku ci loolu bal ba am leen wane na loolu amul bañ ko gëstoo ñoom dugg nag te duñu dugg ci loi française parce que loi française moo ne bala ngay ñàkk nationalité mu am décret président de la république bu la décharger sa allégeance loolu mu ngi am si de décembre déposer candidature donc ba muy déposer candidature ba li mu bind ci biir kayit bi du dëgg loolu ñu ngi koy tuddee faux intellectuel d'ailleurs loolu moo tax ñu Rose di ñu présenté ko devant le procureur ñu toppee Rose Wardini tey loolu loolu la ñu mën a toppee Karim Wade li ñu toppee Rose Wardini loolu la ñu waroon toppee Karim Wade ci yoon waaw Karim Wade tey bu fi taxawoon dañ ko war dañ ko war a présenté devant le procureur parce que dafay def faux intellectuel délit yi ñu toppee Rose Wardini mën nañ ko toppee parce que c'est constitué donc faux intellectuel conseil constitutionnel def benn motivation bu leer ci wàll woowu daan ne Karim Wade dafa déposer tel bés déclaration sur l'honneur requête bi bi mu ñëwee euh, bi Thierno Alassane Sall génne këyit wane ne mu ngi am de française mu de uti décret waaye décret bi 16 janvier la donc postérieurement dépôt de déclaration bi donc conseil conseil constaté que c'est un faux intellectuel au moment où il déclarait ça bi muy déposer candidature il n'avait pas que la nationalité sénégalaise donc ñu dàq dossier loolu amul dara lu si dul yoon lépp yoon la lépp yoon la amul kenn ku fi mën a démontrer que du yoon parce que ñoom lan la ñu wax moment bi conseil constitutionnel di statuer boobu wane na ne il n'était que Sénégal mais du foofu lañ koy àttee dañu àttee ci moment bi mu déposé déclaration sur l'honneur am moment boobu nekkul woon sénégalais rek loolu kenn du ko discuter. kon conseil constitutionnel décision bi daf ko teg ci lu lu dëgg lu dëgër